li ngay demandé ci PDSu démb ak PDSu tey ak PDSu ëllëg mën naa la ci tontu ci ñetti baat bi ci njëkk mooy président Wade dafa waxoon ne en 1976 bi mu créé parti bi jóge congrès ñuy defal ko ay coono ba amul sax fu mu ko mën a defee mu ne ce parti ne sera ni dissous ni sabordé. 1900. 76. 76 deux ans après la création du parti. ce parti sera... ne sera ni mm-hmm. kenn du ko tas. Mm-hmm. kenn du ko yàq. Mm-hmm. kenn du ko jaay. d'accord diggante bi bari na ñu ko jéem arrivé nañu seen diggante boobu ak léegi am na ay dox dox yu ci dox ba nga xam ne situation bi naxari na demaat ba neexaat moonte woon le PCS est un parti solide ancré. dans les dans l'histoire politique de ce pays en dehors du partie socialiste y a pas amul partie bu gën a dëgër PDS ci fi mu nekk teyu PDS teyu PDS euh, defe naa ne xaw nañ ko aborder parce que de manière un peu rhétorique man ak yow parce que da nga ma wax parti d'opposition wala parti de machin ma tontu la ci par écrit mais nga jàpp ne tey tey tey tey fi ñu tollu nii tey tey fi ñu toll nii parti buy dund nekk parti d'opposition amul parti bu ci gën a kawe PDS PDS c'est le plus grand parti de l'opposition du Sénégal depuis sa création bi ñu ko amee ba léegi ba fi mu toll lu tax doo ko wax sànni ko bi mu ñëwee moom rek moo doon xeex Senghor moom rek moo xeex Abdou juuf moom rek waaw moom rek moo ci xeex yëpp boo ko jiite. Mhm. amul benn xeex boo xam ne bi jiitewu ko. d'accord d'accord ñëpp dañu topp ci gannaawam. d'accord d'ailleurs c'est simple. chef de l'opposition binduñu ko woon fenn mais le fait que moom mu taxaw ba pare ñun ñu koy régler suñu bopp ak ñeneen yi moo tax lépp moo ko jiite d'accord jëkk am député assemblée nationale boobu ba léegi day am groupe parlementaire deuxième groupe parlementaire wala mu nekk majoritaire mmh. tey ji fi ñu toll nii moo nekk à l'assemblée le deuxième parti bi ëpp député am groupe parlementaire ba pare am candidat buy dem à l'élection présidentielle loolu mooy tayam ëllëgam mooy c'est un parti d'avenir waxoon naa ne PDS parti la buy compter tey parti la buy compter bu compter démb dañ ko fi teg pour mu nekk partie boo xam ne bii dafay dem bëgg na a sori loolu événement yi am démb ak barka démb ci réew mi wane ne autour du PDS am na PDS bu war a compter ëllëg donc le PDS partie bu mag samp la ay mag samp ko ñaanal ko ay mag teg ko ñu teg ko ci yoon wu dëgër woo xam ne lii euh, maanaam bu ñu jàngoon l'association le chêne et le roseau dina plier mais du damm. Hmm. maanaam daal ku la dégg mooy relève bi moom amoon ci benn sikki sàkk que c'est déjà bien préparé. waaye relève bi bien pare préparé du ma ko wax parce que nit di am dina am jour dem match te ko gagné. bien préparé du ko wax. parce que bien préparé boo ko déggee rek mooy dafa war a dem pour gagner yi mais ñun am nañu ay xale yoo xam ne yii ñu ngi fi suñu candidat 1968 la judd. donc lu mag. alors sunu xale ñiy jiite suñu parti boo leen xoolee ay xale lañu. am na ñoo xam ne mais écoute amaguñu 35 ans. oui suñu parti structures yi ñu yor am na ay structures yoo xam ne ñi ko jiite. bu fekkoon ne dañuy nekkoon dañuy wax ne sax peut-être ay ay ay nourrisson lañu. Mm-hmm. ci politique. Mm-hmm. donc parti boo amee ay xale yu góor ak yu jigéen yu toll noonu jiite ko ay mag topp ci ñu mag ci parti bi gannaaw Ablaye Wade man ci laa bokk. Mm-hmm. moonte woon parti bi am na li nga xam ne moom la moom la àdduna soxla ay xale yu ànd ak ay mag. d'accord donc parti bi parti ëllëg la.